après ñu am un niveau d'exécution bo boo xam def nañ ko ci budget bi Macky Sall defone parce que budget bi chaque trimestre dañ lay defal lo xamni disposition là parce que budget mënuloo ko lekando comme nit ñi koy gëmloowee parce que dañuy bëgg wax ak ñi nga xam c'est des profanes ci walu finance publique gëmloo ni leen budget Sénégal 2024 bi lépp gaay lek nañ ko té budget par trimestre lañ la koy jox lañ la koy mettre à disposition donc lo nek nek sàcc loo bon bon bon mënuloo lekk lekkandoo budget annuel les ci mois yi dafa am un niveau d'exécution niveau d'exécution exécution c'était 23,24,83% était mu am lu fi dess mais ñom biñ ñu à travers les sorties de Diomaye dañ ñu gëmloo ni dara dessul ci réew mi à travers les sorties de Cheikh Diba dañ ñu ni situation bi fekk dafa morose à travers les sorties de Ousmane Sonko dañ ñu gëmloo ni réew mi dafa nekk ci ruine mais un état bu nekk ci ruine est-ce que mën nga am confiance ou institution Bretton Woods yi bañ lay lebal ba toll ci milliards est-ce que mën nga am confiance au marché de l'UE? est-ce que mën nga am confiance le marché BAD autant de questions que xam ñu war nañ ko poser état bu ci ruine est-ce que di nga un premier ministre au lieu nga gouvernement mais da nga ko étoffé nga dem nommer 21 c'est presque un gouvernement parallèle et dans un état bo xam dafa nek ci ruine est-ce que mën nga gëm ni da ngay 25 dig sénégalais ministres mais chaque conseil des ministres a des jël ay mesures individuelles di nommer ay ministres conseillers pratiquement nous sommes à 35 ou 40 ministres plus ou moins avec des directeurs généraux avec leurs privilèges te amul benn directeur général boo xam ni sa privilège manqué na dañ koy jusqu'au dernier centime pendant ce temps le premier ministre nous fait croire que état bi dafa nekk ci ruine wala Sénégal dafa nekk ci ruine moment bi nga xam mi ngi koy wax également ñoom voiture de luxe yi nga xam moom la ñoom Macky Sall bàyyi woon fi ñu ngi koy jël moment bi faire croire également que l' état bi ñu bàyyil dafa nekk en ruine moment boobu ñoom poste yi fi Macky Sall bàyyi woon yëpp ñoom ñu ngi koy meubler à travers seen nit ñi ngi def clientélisme moment bi ñuy gëmloo ni Sénégal dafa nekk ci ruine amul benn institution budgétivore boo xam ne supprimé nañ ko moment bi ñuy gëmloo également que l'État devenait en ruine le président Diomaye préparait son troisième voyage pour dem France le 13 août. Légui, quand nous ñu lan on nous prend pour demeurer ou bien on dañuy préparer ci éventuel échec c'est probable parce que gis nañ ni yoon bi ñu jël baaxul wala dañuy sénégalais ban la en tout cas lu ci mënti war nañ wax sénégalais li nga xam moy dëgg parce que nous avons ni gérer un état C'est la responsabilité gérer un état dafa laaj également éthique dafa laaj aussi ngay waxtaan ak sa askan pour ñuy xam ce qu'il en est exactement ni nii moom moo di nomination yi foofu laay ñëw peut-être ak euh, li nga xamante ne nii euh, jot nañu ko def comme promesse bokk na ci euh, réduction du train de vie de l'État suppression de certains budget certains institutions budgétivores justement ñu gis ni ci nomination yi comme ni nga ko waxee ñi ngi fal ay conseillers yoo xamante ne ni rang de ministre moom la ñuy am loolu lan moo si sa jàngat waaw li ci suñu jàngat moom mooy li ben borom xam-xam doon wax naan la fin justifie les moyens parce que les am ci ay politiciens yoo xam courant de pensée boobu ci ils sont trop machiavéliques bu ñu nekkee ci opposition dañuy diggee mais une fois au pouvoir dañuy évoquer réalité du pouvoir te man dama la réalité du pouvoir ñun gëmuñu loolu xam lañ ñun volonté état état volonté la ñi nga xam ne des politiciens professionnels et trompeurs lañ dañuy utiliser la jeunesse comme euh, ben cher ak canot de utiliser comme bétail électoral li leen di doyee rek moom en tremplin pour mën accéder au pouvoir une fois au pouvoir ñom li ñuy def ñom ñoko xam mais en tout état de cause ñun luñu gëm promesse yi nga xam ni engagé devant le peuple sénégalais ay promesse la yo xam dañ ko respecté parce que bu féké da nga japp ni réew mo xam un pays pauvre un pays très endetté un pays qui xam dafa reculer de plusieurs rangs derrière les pays que nga xam da comme des pays euh, yoo xam ni euh, dañu nekk ci suufu échelle bi mais réew mu mel noonu jàpp mën ni war nañ mën di yàq ba yàq bi egg fii j'aime toujours may évoquer kaawu Thomas Sankara une fois au pouvoir bi mu ñëwee dafa ni man voiture de fonction yi ñu ma jox yëpp mënu ma ko utiliser mënu ma nekk dans un pays pauvre et que mën may baigner dans un luxe insolent da ngeen may wàññil oto yi j'ai besoin juste d'une voiture de fonction ak fu sama sécurité nekk mu am ben compagnonnage bo xam ne dafa dafa sobre mais ministres également dafa wagn sen salaire ba mu raisonnable les députés également mu wàññi salaire ba mu raisonnable les directeurs généraux mu wàññi salaire ba mu raisonnable mais au Sénégal nous voyons le contraire moy li président Macky Sall doon fayeeku mom la jamaay di fayeeku li premier ministre Amadou Ba doon fayeeku le la Ousmane Sonko di fayeeku mais directeurs généraux yi nga xam mo fi nekkoon sous Macky Sall même privilège yi ñu la gaay am mais en réduction près de vie de l'état bi ana poste de direction la ñu supprimer et pourtant au niveau de de l'attelage gouvernemental ci sunu nomenclature administration y a ci poste de direction yoo xam ni amul ben sens ci sunu administration ay poste politique la juste pour caser ce clientèle politique par exemple Si jëlé lu melni Apex, nga jël lu melni SNHLM ñaar yoy waroon nañ ko mëna fusionner mu nekk ben agence ñu xaalisu état bi mais dañ koy éclater pour mën a caser ñaari nit pour mën a caser jox leen ay privilèges pour mën leen jox ay voitures de fonction au dépens ou bien à la charge du peuple sénégalais mais yooyu yëpp bokkul woon ci rupture bi ñu diggoon moo tax ñun ñu ni gëmuñu philosophie boobu gëm ni la fin doit justifier les moyens la fin ne doit pas justifier les moyens li war a justifier les moyens moom mooy lan fexe ba le peuple sénégalais génn ci étranglement bi mu nekk ni beneen bi dañ ñu waxoon également ni une fois au pouvoir lii di caisse noire les fonds politiques ak lu demee ni fonds communs yi dañ koy supprimer ils ont même pris l'engagement devant le peuple sénégalais mais une fois au pouvoir seen discours dafa changé léegi waxatuñ suppression dañuy wax ne dañ koy xoolaat parce que acquis la bu ñu téye ba pare duñ ko bëgg a bàyyi te ñun li ñu gëm moom mooy ay fonds politiques yooyu dafa war a deñ caisse noire dafa war a deñ Font comme dafa war mais jëlal les les les agents des impôts et domaines mais privilège bi ñu am ci sunu Sénégal gi mais de jéggi dayo koo d'ailleurs, à la fin du mois avec les histoires de fin fonds tu peux te retrouver avec 50 millions comme ça qui te tombent du ciel moi et waral un président de la république nga am ko ñu c'est un président de la république demi milliardaire comme Diomaye un président de la république bo xamni ni plusieurs hectares dans des endroits différents ci quartier les plus huppés de Dakar Mermo Sacré-Cœur mou R plus un Baptiste euh, ci ay conditions que xam dañ le mètre vous revient à plus d'un million de nos francs CFA mais si bu avez une histoire fonds comme yooyu est-ce que dina avez un patrimoine et pourtant pendant ce temps le pays est en ruine c'est un pays pauvre équité sociale dañ ci war parce que le médecin plus diplômé que l'agent des impôts et domaine nous am li les, impôts et domaines l'enseignant bi a un doctorat wala am DIA nous am les mêmes privilèges qu'un agent des impôts et domaine. pourtant c'est un simple agent des impôts et domaines le directeur que l'année. mais imagine combien euh, ñaata richesses richesse du directeur des impôts du domaine Vous faites qu'un simple agent de terrain nous millions comme ça en 15 ans seulement mais là, ça doit nous pousser à réfléchir nous sommes. Ah, disparité salariale euh, boobu avantage yi nga wax euh, tey bu ñu ko euh, réformer solution que doon proposer nii. dañu On a ben barème barème bi moom compétence égale salaire égal privilège égal mu avons une am discrimination parce que le médecin <laughs> agent des impôts et domaines gënu ko ëpp valeur ëpp que njëriñ ci société bi l'enseignant l'agent des impôts domaine qu'on société mais li qui bonne sax histoire des fonds communs dafa am lu muy indi muy conflit d'intérêt parce que bu fekkee man dama la ñu war a redresser sur la base des pina pénalités yi ma lay teg samay samay fonds communs mën na évoluer par rapport au montant bi ma lay teg bu fekkee man sédduma sama aqulaay talay bu ma la waroon teg un milliard mën la 1 milliard cinq pour gën gonfler sama sama caisse mais lolu dama japp ni état mom mo wara réguler ce système là parce que fonds comme yooyu waratul exister un attelage gouvernemental waratul exister sur un fonctionnement administratif benen les fonds politiques ñu nek dans un pays où pour nga accéder ci engrais comme baykat problème lay doon semence yi pour nga jot ko à temps problème lay doon mais même pour financer l'emploi des jeunes c'est un problème nga ñi wax ay histoire de fonds politiques ou bien fonds secrets. Si on ci le budget lu ñu la formation professionnelle et emploi c'est 5% du budget mais c'est très insuffisant en ce moment paradoxalement plus de 69 de la jeunesse qui xam accéder à la formation professionnelle Nous avons plus de 300 000 demandeurs d'emploi par an yow fonction publique li nga ci a 5 000. secteur privé bi capter créer emploi pendant ce temps secteur privé bi avec ces histoires d'impôts ces histoires de redressement etc.? L'État mm. état être rigidité état parfois da ngay souplesse parfois il y a li nga xam ce intérêt a. parce que dañ la pour améliorer le bien-être quotidien des Sénégalais Il faut pour créer des des opportunités mais il faut pour étouffer euh, l'éclosion même de la richesse l'éclosion même des emplois pendant ce temps yow nit le pays est en ruine c'est parce que acte yi ngay posé moo doxul mais nous dañ ñuy préparer psychologiquement ci seen échec mais gëm les ni réforme yu ñu war def amaguñ courage def ko ils sont toujours dans l'activisme d'État ils sont toujours dans dans le populisme ils sont toujours dans les discours maintenant on doit siffler la fin de la récréation parce que mm. élire nañ leen jox nañ leen les manies jox nañ les solutions jox leen cachet état bi ils ont tout ce qu'il faut pour développer ce pays maintenant est-ce qu'ils ont les compétences est-ce qu'ils ont les coups de franche est-ce qu'ils ont du répondant pour répondre aux aspirations du peuple C'est ça la véritable question. dans cette préparation, comme vous dites, euh, à l'échec probablement, est-ce que nekkul ne euh, li ñëpp di que ne euh, loolu la Ousmane Sonko def dafa taal contre-feu pour retirer les gens li nga xamante ci voile yi la communauté chrétienne pour ne pas nommer Abel Latir parce que bon euh, c'est quelqu'un qui il aime parfois se mettre devant la scène te dama un problème un premier ministre intuitif mm-hmm. conscient des enjeux et des difficultés auxquelles les Sénégalais sont confrontés Il mm-hmm. am taxaw nous sommes habitués à ça vous un grand théâtre menacer les journalistes menacer également les patrons de presse vous demee génn taxaw euh, les les les les les élèves qui sont primés par rapport à concours général il y a taxaw di wax ay voile mais parfois on se rend compte que qui devait mener une culture état psychologique un premier ministre il doit être à la hauteur de la charge Si boo nekkee un premier ministre il faut cadrer sa communication boo demee grand théâtre sa jeunesse nga woo waxal ak jeunesse bi nga conscientiser wax par rapport ak fi avenir lan mm-hmm. mais waxoo leen ci dara ci ay menaces ci journalistes yaa ci ay feneen ak feneen yaa politique toujours politique politicienne toujours activisme boo demee wax wax ak marchand ambulant mais encore une fois réew moo xam dafa nekk ci ruine di nga taxaw sax ak ay di wax ay waxu DER financement c'est-à-dire le paradoxe Ousmane Sonko moo au cœur de ce problème Nous ñu nous nañu ni am na question yoo xam ni heure pour ñu régler mhm. les juges sont ailleurs créer emploi faire réduire la cherté de la vie faire permettre aussi aux citoyens sénégalais d'augmenter augmenter pouvoirs pouvoir d'achat Nous ñu des jàngi jàngi bu ñu mais également ñu améliorer conditions de vie sénégalais mhm. mais imaginez nous sommes à deux mois de l'ouverture des des classes mais est-ce que y a suffisamment de salles de classe est-ce que y a suffisamment d'écoles? Il y a plus de 4000 abris abris provisoires. inondation il y a am ñoo xam dañuy dem occuper école mais loolu au lieu nga dem anticiper ci loolu anticiper pour créer contre-feu C'est une mauvaise communication c'est une mauvaise préparation mm-hmm. alors que gérer un état c'est prévoir li nga war prévoir mooy problème yu nekk ci kanam inondation a ngi nous sommes à quelques encablures de l'ouverture des des classes mm-hmm. Nous laa war inondation yi du impacter ouverture classe Nous avons laa réduire le nombre d'abris provisoires pour que nous ayons une bonne rentrée des classes Nous avons war le def ba chevauchement bi am universitaire bi ma régler ko nga xam day à à l'heure à la normale Nous avons def ba également année universitaire il du am ay perturbations Il faut, prévision les nga war a anticiper sur les problèmes. mais il faut ci créer des contrefeux des questions politiques ou bien des des quiproquos ça ne nous mêle nulle part. des quiproquos stériles. Ousmane Sonko est habitué à ça malheureusement nous avons koy xaar ci cinq ans mais nous sommes embourbés dans son feuilleton de 5 ans mais l'aboutissement sera un échec cuisant pour le Sénégal. la question des inondations je naa du ñàkk ñu dellusiwaat si bu mais euh, da nga wax tout à l'heure wàllu euh, emploi. Euh, des jeunes ak politique bi nga xamante ni tay war nañu ko taxaw justement pour ut am une solution euh, ci euh, problème bobu yeen da ngeen bokkoon ci nga xamante ni da ngeen bëggoon sénégalais yi dagal euh, jox leen sen baat pour ngeen mën diriger li nga xamante ni mom modi réew mi donc forcément amone ngeen ben programme bu taxaw bo xamante ni mom moy génnee Sénégal ci goutte tay ji lan ngeen japp ni mom la wara mëna a sur la table pour régler justement ce problème de l'emploi et l'employabilité de la jeunesse. Pour, pour juguler ce problème, il faut tout simplement avec le secteur privé. avoir un secteur privé très fort Je permettre un créer de la recherche créer aussi emploi deuxième bi vais favoriser l'auto entrepreneuriat créer les conditions qui permettront à la jeunesse d'auto entreprendre parce que état du Sénégal monte recruter une fonction publique benen mom moy aussi ñu yaxanal xaalis bi ñuy yaq ci sun administration bu boba dañu mëna permettre xaalis boobu ñuy récupérer ñi financer ko ci yenn projet de jeunes yi fin surtout de financement yi aussi ñu auditer ko ba nga xam day répondre ci préoccupation askan bi ci seen aspiration comment parce que DER bo xolé dañ ko tek comme une organisation politique bo xamni ni c'est pour tout simplement alimenter la bataille politique bu fekkee da nga am benn base boo xam parfois dañuy soxla xaalis pour nga mën leen noppiloo nga mën leen entretenir da ngay créer DER di yëkkati parfois 5 millions di leen financer et que au, bout du compte financement yooyu du am benn effet par rapport ak seen avenir mais li ñu war a def mooy ñu auditer ko xam DER bi xaalis bi fi ñuy injecter foofu milliards yi ñu fay injecter fan la jëm lan mooy niveau de productivité bi ñu évaluer ko constamment par rapport ak ni ñu koy ni ñu koy joxee bu boobaa daañu mën a permettre suñu jeunesse bi ñu mën di am ay projet yu ñu étudier nekk lu bancable ba état du Sénégal mën na en appoint di leen ko financer nous benen la bi également moy ñu ba créer de petites unités unités d'industrie légère té industrialisation ñom ñu koy wax mais c'est mal connaître l'enjeu de l'industrie. parce que l'industrie il des investissements lourds dafa laaj également de l'électricité. parce que bo demee dans le Sénégal des profondeurs accéder à l'électricité ñu bëri nag bu ñuy wax dañuy Dakar rek Thiès les grandes villes mais le monde rural accès accédé à ci électricité amuñu électrification bu doy boo demee biir bi bi bi nga xam Ousmane Sonko dëkk da 46 villages ci département bi ci biir commune bi amuñu électrification nga dugg biir Saloum commune bu Saraya nga dugg commune commune bu euh, Escale mais amul électrification nga dem bir Kédougou électrification autant de de de de de départements et de communes ont xam donc si on nous parle d'industrialisation c'est parce que ñom dañuy projeter dans le long terme alors que dans le court terme li gëna efficace mën de petites unités d'industrie légère permettre à la jeunesse de faire de la transformation comme Nico, famille, femmes mais mais c'est pas structuré faire par exemple euh, transformer les légumes transformer les fruits les jus etc cetera dem vers l'exportation pourquoi pas avec l'appui de l'État lolo bu État ñëwé en appoint de fay gëna productif fay nek lo xam da fay gëna structuré benen bi également moom moy l'État du Sénégal par rapport à recrutement yi mu de de de la complaisance de mauvais lois, parce que bu féké da ngay jël nit nomme ko PCA nga six mois par conseil d'administration lay ñëw nommé nga ko mais yaa koy accompagner avec ay privilèges yaa koy accompagner ak salaire mais certaines nominations ay PCA nous dañ ko war a supprimer ñu injecté les ñu jël dugal ko projet Yo yow jàpp nañu ni bu ñu defee dina soutenir l'employabilité des jeunes bu ñu demaatee in fine ci structure de formation professionnelle nous revoir également cette filières est-ce que c'est adapté par rapport aux besoins des Sénégalais est-ce que adapté par rapport aux besoins des entreprises parce que les Sénégalais ils ont vers la formalisation formation professionnalisante dem filières c'est des filières par exemple euh, comptabilité toujours comptabilité